ci loolu mooy jëwriñ mm-hmm. ci li nga xam ne moom laa doon wax moo di conseil constitutionnel bi mm-hmm. euh, si anam yi nga xam ne noonu lañ koy tëggeek yooyu surtout les sept sages mooy sànq fi ma nekkoon euh, ndax yaakaaroon ne aussi ñoom seen taxawaay war nañ ko xoolaat xam ah, nga dama am problème dama mosoon laaj benn journaliste parce que affaire bi tamit journaliste yi dañ ci am responsabilité ah. ñun journaliste parce que les journalistes d' investigation xam nga ñoo ñu war a informer sur wala gisoo loolu. effectivement non je suis d'accord mais je sais pas comment. Le euh, texte journalisé, par rapport ak euh, journaliste buy divulguer li nga xamné ne nek la nationalité d'un candidat à la présidence. journaliste il il fait que demander xam nga journaliste c'est say question parce que nous avons ñu ni euh, double nationalité. Hmm. mais est-ce qu'on est autorisé. Hein? même au sein de 21 candidats yi il y a il y a des journalistes qui sont spécialisés sur les. économie si si a ñooñu euh, des investigations pour nous si mhm. double nationalité dañuy euh, wax mais même Amadou même Amadou bi nga mooy dénoncer di di dénoncer. recours recours pour parce mais Amadou nous, son authenticité d'être sénégalais. non ah, hmm. lui c'est un sénégalais quand même. c'est pas lui. il y deux euh, personnes ci groupe bi. non wala waxuma ne moom la mais dama ne am na ñuy poser question ci soo gars yi ah. Séné sénégalais sax yokkal nañ ko ci. am na moom lan la sénégalais. moom sénégalais mais moom d'origine. de père et de mère. Amadou Amadou euh, maanaam origine fan la. Sénégal ñaabite mm. yow c'est ça non non non non. wutal leen jàpp café j'ai entendu que boobu deuxième génération troisième ko wax la wutal a xaw ma ak wala maamam ñëw woon Sénégal ko def si immigration. def si immigration Sénégal jóge Guinée quoi. Euh, comprendre Amadou Ba du ma sa tontu ko parce que xam nga nag Sénégal xam nga lan mooy wax wax ji ah Sénégal dafa tuuti quoi et puis ñëpp xamante ne. Hmm. ñëpp ay kal lañ quoi en quelque sorte. ok sant yi am nañ fu ñu duggalante quoi. parce que bo xolé le bas donc nga top le Sénégal dem dem ba Guinée day dem aussi ba Mali sax amna beaucoup ba ba Côte d'Ivoire ba Côte nii est-ce que y ngi dégg est-ce que yaa ngi dégg wax yi même ba Mauritanie sax fay am quoi bon anyway parce que problème bi moy que ni instant si tol ni problème de nationalité yi hmm, problème la bo xamanteni comme niñ ko waxé sank euh bon, à part que euh, l'administration, parce que l'administration est politisée, quoi. Tu n'attends pas que l'administration de leur les informations authentiques. Donc, euh, pour moi, euh, la tâche de journaliste, les chars, quoi. Au-delà de cela, moi, les sept sages. Mm-hmm. Tu sais que moi, ça un problème, moi, Sénégal, il y a tout sage, mais là, moi, sage. Mon ex, c'est un rek. Hein? Moi, c'est mamie, rek. Non, sage, tout Un sage, c'est de l'eau. Euh, le sage c'est la sagesse dem tu ci Google mm-hmm. <laughs> qu'est-ce que c'est que la sagesse mm-hmm. parce que la sagesse en quelque sorte c'est une forme de vertu c'est une forme de vertu quelqu'un qui a le discernement entre le bien et le mal c'est vrai et qui est équitable et qui est sincère c'est vrai mais dans euh, notre euh, culture mm-hmm. baal ma vous un certain âge euh, ça c'est la culture ah, africaine. sénégalaise ouais. africaine. Uh-huh. Euh, dañ lay wax carrément qui ah, c'est un sage. mais xam la vieillesse n'est pas synonyme de la sagesse quand même. Euh, certes certes. L'autre aussi nañ ci dugal ay mais parce que le vieux pour sage quand même. allez-y d'abord. da nga sage. bon mooy définition bi am. mooy équité ak loolu noonu mën a xamee dëgg ak xam ne loo xam ne loolu mën mën a ah, mën a tëddee ndey ji seex te wax li nga xam ne moo di dëgg. dans ce cas ñi nekk fii ci Sénégal mën nañ leen tuddee des sages. bon actuellement man waxoon naa nee na comme benn kii la Cheikh Fall doon na naan ma yaa ngi koy wax keroog nee na picc picc jàmm buñ ne yàlla na naaw ci nawet pitax taxul ramatu taxul njéeréer moo tax ñuy wax. Hmm. te biir set yooyu am na ci koo xamante ne mooy ñuulal soow c'était mm-hmm. le président là mm-hmm. Badio Camara tey ji ba doon def sondage ci fiabilité sénégalais yi ci Badio Camara est-ce qu'il inspire confiance mm-hmm. <laughs> malheureusement nekkul li am bu ñu xoolee jaar-jaaram. est-ce que yaa ngi dégg waa. déclaration de patrimoine am defu ko ba mu ko war a defee. bi mooy un retraité boo xam ne dañ ko yokkalaat. waaw ba pare yóbbu ko foofu. foofu te ñëpp ni dossier boobu ci moom lay mujj est-ce que ça inspire confiance nañu wax li fi nekk quoi c'est concret quoi il n'inspire pas confiance Badio Camara le président jo keroog li mu def maître Clédor kenn du ko def finalement euh, qui inspire confiance si euh, processus électoral hmm. parce que au-delà du régime en place ak euh, tactique yi nga xam ne hmm. gis vraiment si on reste dans le factuel mun koy def pour barrer la route euh, ñenn ci ay candidats yu sont dangereux pour nous. Mhm. mais benen wàll bi aussi opposition bi gis neen benn boo ne wala acte yoo xam ne poser mhm. vraiment pour galgalanter pour ne pas dire euh, vraiment euh, ñu dem ba reporter les élections qu'est-ce qui se passe si élection yi pour ne pas dire l'opposition même est-ce qu'il y a pas aussi un deal entre certains de l'opposition ak ñi nga sont au pouvoir parce que nous, actes lui proposer, euh, vraiment, ça profite au président Macky Sall. Bon, Macky Sall, mon rêve, moi, de reporter l'élection. Mm-hmm. Tu vois, mais ce problème, tu vois, quand il faut que nous quoi. Tu nous tu vas venir te hommes le poisson pourri commence par là, la tête. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des. Macky Sall, c'est bon pour moi, inspiré ou confiance. Mm. Parce que déjà, quand il fallait, il faut perturber la machine électorale. Mm et si Macky Sall inspiré wul confiance dans ce cas képp ko xamné ne da laa teg si instance bo xamné da nga wara atté mën nañ def point d'interrogation. c'est la première fois ñuy dégg ci ci ci ci euh, kii euh, Macky Sall euh, des choses yo xamanteni mësuñu ko depuis dégg depuis que le Sénégal du Sénégal. hein yow yow comment une administration. Mm. comprendre que di refuser di def liggéeyam vis-à-vis à son propre euh, concitoyen cest ce que nous def fait. ko fenn fait duñu attestation de dépôt de consignation Nous avons fait une duñ ko jox attestation xam nga tey jii looloo tax ñu bloqué ñu ne ñu ne euh, des dossiers Ousmane Sonko dafa dafa dafa manqué mhm. complet wul ñu ne lan moo ci manqué ñu ne attestation bi te ñun ñëpp gis nañ ni Ousmane Sonko dem na déposé caution ñu jox ko quittance mu dem di jëlee attestation directeur bi ne du ko jox te amu ci droit amu ci droit ñu ne lan ma nekkul ci fichier bi mais fii léegi ñaata léegi nag xam nga ci parrainage bi am lu feeñ ñaata candidat lañ fi ne am nañ seen quittance am nañ seen attestation ñu dem ba ci parrainage bi contrôle de parrainage ñu ne nekkuñu sax ci fichier bi. deux candidats Mary Teuw Niane benn. ma Mary Teuw Niane benn loolu mooy que ni ñoom ba ñuy wax loolu sax contrôlé wu fichier bi amuñu référence ci fichier bi. te ñu ko def par ordre boo xamante ni ci kaw la jege ah. Mhm. Eh, directeur eh, nu mu tuddati eh, nu mu tuddati ki yoroon kii de parrainage ki daan joxe feuille de parrainage yi la. du du Ndir xaw ma naan ah, Fall. lii la. Candeela ah, Fall ah Candeela Fall ne du jox du jox Ousmane Sonko feuille de parrainage am pourquoi parce que nekkul ci fichier bi. te amul sax fichier de référence bi yow naka ngay ne ne Sénat. Sénat ñu koy ñu interpellé ko Sénat mu ne ñoom amaguñ fichier bi. original bi version nouvelle. bi comprendre nga. donc donc donc le processus est est déjà baisé depuis le début quoi. de début jusqu'à la fin quoi comment ngeen bëgg ñu dem ci élection yu yu yu yu fiable té kenn amagul euh, référence de fichier bi. Hmm. à un mois hein? des élections. fii Yirim la ju fi Macky Sall pourquoi duñ jël élection yi jox ko service autonome et indépendant mu taxaw ci digg télé bi la waaw. lan moo tax du ko def te loolu ñu laajoon ko ci jamonoy Ablaye Wade ba ñu jox leen ko. Mm. te bokkoon na si ñi nga xam ñoo porté woon. ñoo porté boobu léegi yow yow boo ñëwee ci démocratie les choses qui sont déjà acquis boo ñëwee waruloo ko mettre à cause ko mm. c' est pas même logique quoi. mais avec Macky Sall mën nañu wax lépp ba mu des démocratie. Macky Sall doole crasse la dafa indi doole crasse ak mathéisme. Mm. ah lu ko neex lay def ko ko neex lay def daf ñu delloowaat ginnaaw li ñu liggéeyoon yëpp avant muy ñëw ba am ko ci démocratie daf ko delloowaat ginnaaw mettre ko en question. mais j'ai comme l'impression dañoo am aussi c'est pour question pour yéen ñaar la Daouda. Mhm. opposition bi ko ah, bi nga xam ne euh, daf ko yombal.